mooy gàmm mooy kan ku ñu gàmmul mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, bu ñu ñi xamoon li ma xam ñëpp ñëpp gàmm benn bés moo war am ci àdduna muy gàmm muy juddib Seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ñi xamoon lu MJK xam ñëpp dinañ jóg di jóg jaay seen kër yi jaay seen lal yi jaay seen takkaay yi ngir Seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ñu ñi xamoon lu MJK xam ñëpp dinañ jóg wax dëgg yàlla di kontaan di bég duñ tal lekk duñ tal naan duñ tax def dara ngir jëmm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo waral nag ñun bientôt très tôt euh, MJKDFS dafa xamee noonee da xam ne ne loo bëgg mu yokk loo bëgg mu jëm kanam da nga koy da nga koy da nga koy addil yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yooyu secret le mouvement MJK c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bëgg ko lool ba xam ne gàmmam euh, suñu suñu premier euh, temps nga xam ne doole gi bëriwuloon lii mooy wan ne yëfi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul tànk ginnaaw ñu ngi commencé woon ci ñaari ceebu mbay di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw ba ñëw ci ay quarantaine presque cinquantaine de bœuf ah, ceeb yi camion ceeb ay diwliñ ay ndox lépp pour jaawab yàlla yi ndax julli ci Seydina Mohamed bien vrai que allahuma salli ala Seydina Mohamed salli wa ko koy wax ci lamiñ kenn dara gënu ko julli ci yonent bi la waaye nag jëf na ci jaawab yàlla yi ah dara dàq ko loolu nag moo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. nga bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam tout sañoon tey ku sañoon di nga yeew nag sa bundu kër. ndax ko bëgg yonent bi amul amul ku sañoon di nga rey yóbbu sa kër ku sañoon doo tàllal loxo ku sañoon doo uti da ngay toog sa kër yëpp fekk si la waaye nag yàlla moo bindee noonu yàlla moo bindee ñii am lu na gàññ yàlla moo bindee ñii amul dara dara dara yàlla moo bindee ñii amul astuut waaye yàlla moo bindee aussi ñuy soxlawante ndax du ñu soxlawante àdduna du du baax àdduna kenn du respecté kenn il faut ñu soxlawante et donc loolu la yàlla def moo war a tam ñu war a dimbalante te yàlla rek tax soo gisee nag ñu indi caméra yi di ko wane def lu baax dañ koy fësal ndax def ko di bon yaa ngi def lu bon di ko fësal si réseaux sociaux yi di wane seen cër yi di saaga ndey di saaga luñ di ko di ko wane comme tu lu bon lañ mën a wan nag wax baax lu baax lu baax dañ ko fësal moo waral ñu indi caméra yi wax leen ne la lu baax moo ëpp doole fuuf lu bon ndax nag lii lu baax la ñun nag politique wuñ dañu jaamu yàlla lii ñëpp a ngi daw naan nangam lii waa mairie Kaolack waa nangam loolu loolu cëru yàlla la yàlla mooy fal ñun dara sonaluñu lu le plus important mooy la population kaolackoise le plus important mooy nañ def rek teel a tax yàlla gis na ndaxte ñun ñii boobu ba léegi bañ commencé ba léegi euh, c'est un mouvement boo xam ne il marche avec des budgets financiers. waaye nag kenn mësuñoo yërëm kon kay ñun bàyyi nañ suñu bopp yàlla yàlla moo fi ne et donc yàlla bu ñu indi ba fii nañ ko bàyyi suñu bopp bu ñu waree doon mairie Kaolack dinañ ko doon bu ñu ko waree doon duñ ko doon. président Macky Sall ak troisième mandat dama ne monsieur président Macky Sall c'est le meilleur président sénégalais de tous les temps. C'est le meilleur président sénégalais de tous les temps. Depuis, président Boussa Am, nous avons fait 40 ans, nous avons fait 12 ans. Président Macky Sall, en, 12, en 7 ans, il a fait des réalisations. Et donc, nous avons fait l'ambogologie. Sénégal, nous avons dépassé ici. Sénégal, nous avons dépassé ici. Nous avons tardé, nous avons fait l'ambogologie. Nous avons fait l'ambogologie. Nous avons fait l'ambogologie. mag ñi mag ñi def nañ Nous avons fait des sa xol bu la demee munoo dem président Macky Sall yàlla fal na ko yalla moko fal yalla moko fi taj nañ ko baye mu liggéey président Macky Sall bu soxla 4e mandat war nañ ko ko jox. il le mérite il le mérite man je dis bien je pèse bien mes mots man Ousmane Noël Dieng président Macky Sall soxla 4e mandat ñu ñu jox la ko la jeunesse.